ma Ibson ne ma laabal et dans votre cas kon la bind si texte sax doyu ma asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk àdduna mbokk internet yëpp ñu ngi leen di ziare di leen ndokkeel tey daal indil leen benn kilifa bu mag bu ñuy wax Cheikh Adji Thiam Cheikh Adji Thiam ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen ziar ñu ngi leen nuyu sëriñ bi di leen ziar baada auzu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala muhammadin rasulillah sallallahu taala wa sallam maa leen di siyaar di leen ndokkeel di leen gërëm ci invitation rafet bi ngeen invité alhamdulilah jërëjëf Cheikh Adji Thiam waaw su ñuy wax Cheikh Adji Thiam maanaam kan nan la ñuy def ñun ba xam kan mooy Cheikh Adji Thiam waaw Cheikh Adji Thiam moom moo jugee fan moom moo soqeekoo fan ak moom mooy doomu kan moom mooy doomu daara wala doomu nan waaw jërëjëf Cheikh Adji Thiam ndongo la mhm. judd ci eh, nekk doomu soxna mhm. jàng xam-xam fañ ko war a jàngee ginnaaw bañ nekkee xale waaye tamit ñu doon xam-xam si suñu maam ndax képp koo xamante ni euh, yaa ngi dëkk Saalum war nga xam tafsir Omar Mojo Thiam borom xam-xam bu mag a mag la woon boo mm-hmm. xamante ni képp koo xamante ni dëkk nga Saalum xam nga ko mm-hmm. doone nañ ci moom ci xam-xam mm-hmm. ndax yàlla baaxoon na ko ñetteelu soxnaam jina la woon wala fi may waxee yow nii soxnaam soosu noonu génnagul àdduna mi ngi dund ñu ngi jëflanteeg moom si baatin am na suñuy mbokk suñuy mag yoo xam ne njëkk nañ fiy jaar mu soo mag boo xamante ni génn àdduna ginnaaw ba mu génne àdduna si euh, lañ si lañ ma jox euh, mën naa wax ne euh, lenge yi wax dëgg yàlla moom da doon moom si lañ ñëw naa alhamdulilah loolu am na solo Cheikh Adji Thiam ñu ngi waxtaan yow nag ñu ngi gis loo xam ne du yitteel jamono luy yitteel àdduna bi yëpp muy wàllu ubbeekaay ndax ubbeeku mooy lépp maanaam ubbeeku moom sëriñ bi yow nan ñu ciy dimbalee ak nan nga si mën a dimbalee nit ñi ba ñu ubbeeku lépp lu ñuy yóotu mun kaa jox sëriñ waaw ubbeeku dañ ci am xam-xam boo xam ne bu wér boo xam ne lambaa dañ ko rasa dañ ko ndax sama maa ngi wax ne sama maam taf si onor ma dara wax ne képp koo xamante ni am nga soxla gi ñëw si moom boo xasee teg sa tànk si biir mm-hmm. si kàttanu yàlla képp man damay faral di wax ne képp koo xam ne mi ngi fas yéene la ñëw si ñun di si man di ñaan ko ubbeeku mm-hmm. bu fekkee ne li muy ñaan yàlla bi ñu ñaan yàlla mënta am yàlla duñ gisante wàllu mm-hmm. ubbeeku am nañ ci ay bunt yu wër mm-hmm. tey lu ci mel ni sàqam dugub képp koo xam ne yaa ngi doon ab saalum saalum war nga koo xam si joxe mujj am na secret boo xam ne lañ ciy def képp koo xam ne utiliser na ko si kàttanu yàlla macha allah loolu am na solo Cheikh Adji Thiam Cheikh Adji Thiam tamit képp koo xamante ni ubbeeku na yaa ngi dégg yaa ngi gis ndog ndog yi dafa bëri nit ñi di fexe nit ñi te képp nag ku am rek maanaam macha allah moom la ñuy fexe leen fexe léegi nag ci wàllu kaaraange maanaam nit ki kenn du ko xeex si baatin ba jot ko wala kenn du ko mun a yàqal maanaam ci alalam maanaam lépp loo xam ne lii kaar aar nit daal maanaam loolu am na solo tamit kaaraange kaaraange am nañ ci loo xamante ni tey lu ci mel ni teen bu tëj lu ci mel ni garab gi nga xamante ni doomu arama dafa daanu dafa xaru daanu. Mm-hmm. am nañ ci secret boo xam ne dañ ci def képp koo xam ne defal nañ la ku la liggéey di nga taxaw ci bàmmeelam. macha allah loolu moom xam-xam bu wër la làmbatuñ ko luñ doon suñu maam la. macha allah te ñu ngi jëflanteeg ay nenaa la ay rawaan. Mm-hmm. yoo xamante ni ba léegi fi may waxee yow nii ñu ngi gis loolu ci kàttanu yàlla. Mm-hmm. te mu te mu ngi xam-xam bu wér. mais Cheikh Aliou Cheikh yi Thiam maa ngi laajaat tamit lenn ci wàllu kaaraange maanaam nit koo xamante ni maanaam mbooloo mu ngi koy xeex. koo xamante ni maanaam fépp lépp lu mu am rek day tasaaroo day dem loolu yëpp si wàllu kaaraange la nit dafa war a aar war a ñàkk boppam loolu noonu tamit ñu si. dimbalee comme fi ma daanelee léegi nit dafa war a aar boppam dafa war a ñàkk boppam. Hmm. ginnaaw bi nga xam ni ubbeeku nga war ngaa mën a aar sa bopp même bu dee ubbeeku nga war ngaa mën a aar sa bopp ndax ni xeexante gi dafa bëri. Hmm. amna lo xamanteni bi la ko jëflanté ci walu ko xam mi ngi lay xeex ko nan la né di nga taxaw ci bamélam ma sha allah di nga taxaw ci bamélam dem nañ ba ci ki nga xamanteni ni euh, maanaam cat sax daf ko top mhm. buñ la jëflanté ci yow ci kàttan yàlla doon non ciat bobu dalay day day ci yow ba ba jé tak képp ko xamee digéen la di nga fa di nga taxaw ci bàmmeelam alhamdulilah jërëjëf jërëjëf sang bi ci Thiam jërëjëf question yi ma sha allah sa réponse yi leer na maanaam képp ku ko dégg dina mëna a jëriñu tamit ci lolu tamit képp koo xamante ni soxla na numéro Cheikh Adji Thiam yaa ngi koy gis noonu si écran bi mu ngi daw noonu ngeen jël ko mën ko see jot Cheikh Adji bi ñu lay laaj Cheikh Adji Thiam ñu lay laaj si wàllu këyit wàllu këyit xam ñu nekk bitim réew sonn leen lool ci wàllu këyit pour ñu am këyit day jafe dañ koy nekk fukki at nekk si dëkk ba daw dàqe maanaam mbiram këyit daal nan nga si ndax mun nga am secret boo xam mun nga siy dimbale nit ñi kayit yomb wàllu kayit am na koo xamante ni amaan na bu ñu seetaanee moom euh, bu ñu seetaanee moom dina doon wax ne lii nii wër la ak xatal am nañ ci loo xam ne kilifa gi képp koo xam ne defal nañ la ko si ñeent fukki guddi gën see bëri mm. si kàttanu yàlla képp koo xamante waxuma la kayit ngay xeexante ay mbooloo si wàllu ne lii laa bëgg a jot mm. moo xam concours la moo xam kayit ngay wut mm. moo xam benn place boo xam ne yéen a koy xëccoo lépp loo xam ne yaa ngi koy yóotu si wàllu kayit maanaam wàllu administratif si kàttu yàlla loolu boo ko utilisé gën am bu gën see bëri ñeent fukki guddi si kàttu yàlla kooku da nga da si jot. incha allah macha allah loolu moom waa bitim réew suñ ko déggee yaakaar naa ne dinañ kontaan te xam ne tamit ñun gis nañ li ngay ay nit ci biti maanaam loolu moom moo ñu gën a amal gën a teewaat fii waaye nag moo tax Cheikh Adji Thiam lenn rek la lay laaj loo xamante ni sonal na askan wi maanaam muy féewaloo maanaam ñu lay laaj nag si wàllu boole maanaam koo xamante ni. am na njabootam njabootam tamit doon benn wala koo xam ne ay soxnaam dañoo tasaaroo bañ ñu duñ benn loolu noonu lan lañ ci mën a dimbalee loolu ci mën a dimbalee askan waaw bu boolee ay nit euh, xam-xam la boo sax na jafewut waaye ñi koy nit ñi di faral laaj di ko laajaat dafa bari léeg-léeg nga toog ñaa ñoo xam ne dañoo bëggandoo toog toog mel ni ay xajal hmm. waaye dama lay wax tey lii nga xam ne mooy bakkanu euh, bukki hmm. lépp lu ñuy liggéey ci wàllu boole ay nit tey am nañ ci xam-xam boo xam ne lu wér tey nga am problème ak sa jëkkër mhm. nga gis ni bëgg ko nga bëgg yàlla def ni ñu jubale seeni rawxaan mhm. soobee yàlla am na loo xamee lañ ci def képp koo xamee defal nañ la ko kooku moom juróom-ñaari fan mhm. moo ci gën a bëri app bi loolu lu yomb la macha allah macha allah loolu am na solo Cheikh Adji Thiam kontaan nañ si dalal bu la dalal waaye tamit balaa ñuy jug tamit dina la laaj loo xamante ni si wàllu xeexante ndax da ngay gis nit ñoo xamante ni ñu ngi bokk place di liggéey maanaam nit ki dàq nit ki lu muy def maanaam waaye dinañ xeex ba nga xamante kooku du si bërëb ba maanaam mbiram xeex nit ñi xeexante loolu moom euh, maanaam loo ñu si mën a tamit dimbalee ci xam-xam boo xamante ak loo si mën a dimbalee askan wi am na wàllu xeexante am na loo xam ne am nañ ko si eh, kilifa gi ci wàllu xeexante tey ñu ngi koy liggéeyee si gën a tux ñu ngi si def am nañ si secret boo xam ne képp koo xam ne defal nañ la si si kàttanu yàlla boo ko utilisé képp koo bërëb ba nga fa ba nga nekk yow yaay toog nga bëgg a bàyyi sa bopp wala réew ma nga nekk yow yaay toog bëgg a jógeel sa bopp wala place ba nga nekk yow yaay toog bëgg bàyyi sa bopp waaye doomu aadama mënu la fa jëlee te ca kaw rek ngay jëm heure boo fa nekkee yaay yi képp koo xam ne yaa ngi fa nekk ak moom yaa koy fi yaa koy féetee kaw loolu moom cheikh bi lu ñuy sangoo la wala lu ñuy takk la wala lu ñuy naan la wala lan la am na liggéey boo xam ne fii lañ la koy defalee am na loo xamante ni liñ lay yónnee la si ay looy takk macha allah amul si loolu am na solo waaye tamit ñu lay laajaat tamit loo xamante ni jaaxal na tamit euh, askan wi. mi mm-hmm. jaaxal na góor yi. waaye tamit jaaxal na tamit jigéen gi. Mm-hmm. ndax ñoom ñooñu waaye dencante la ñuy doon góor ak jigéen. Mm-hmm. ñu si wàllu kattan. dafa dem ba nga xamante ni nit ñi daal sonn nañ ci loolu maanaam mënatuñoo maanaam euh, jox seen jabar seen i càkkutéef ñun soxla lépp. yaa ngi dégg waral na yenn mbir daal jaxase na dëkk bi. waral na njaalo yu bari leneen ak leneen leneen ak maanaam ñu lay laaj nag si mbiram ndax loolu noonu dañ ci yëngatu mbiram mbiram kàttan dafa am lu loo xamante ni lu simple la ñu ngi ko jëlee si suñu maam mu doon loo xam-xam boo xam ne bu wér la tey képp koo xamante ni am nga problème mu kàttan képp ku am problème mu kàttan am na loo xam ne lañ lay jox boo koy nga def ko ci ndox nga naan ko boo koy naan sax dafay mel ni yow euh, naanoo saafara naanoo dara ci kàttanu yàlla boo koy naan di nga gis jëf joo euh, euh, doole joo xamante si yow mm-hmm. da nga naan lii nu mu demee te si kàttanu yàlla dootoo gisati lu mel noonu xamante ne fu dafa taxaw yooyu yëpp comme ni ñu koy waxee mm-hmm. yooyu koy dañ koy saafara ci kàttanu yàlla ba nga xamante ni dootoo ko gisati loolu yàlla may nañ ci mm-hmm. lu bëree bëree bëree bëri mm-hmm. macha allah jërëjëf sëriñ bi aji Thiam ñu ngi ñëwaat tamit ci lenn di la ko laaj moo nekk ci wàllu seet ndax seet maanaam ñuy dégg ñu naan ah Cheikh Adji de képp koo xamante ni maanaam wax na la suba da ngay dee moom loolu noonu moom mooy ñu lay laaj yow ci lan ngay seet. Euh, kilifa gi seet lu yomb rek ñun yàlla dimbale nañu dañuy seetee seet biddiwu doomu mhm. képp koo xamante ni ñëw na wax ñu soxlaam pour ñu ñaanal ko si yàlla ko ñaanal yàlla nañ ko seet seet biddiwu bu fekkee mën nañ ko ñaanal yàlla ñu ñaanal ko yàlla waaye seet nga ñëw rek ne seet moo ma tax a jóg bëgg ma seetal la. loolu fi nga toog lay toog ajoo ma jël kurus ajoo ma dara rawaxaan la ñuy dafa am jat nii jat rawaxaan yi daal di ñëw daal di ñu wax jëmmi doomu aadama bi ginnaaw ba ngi baax nga nga wax ñu sa tur wax loo xamante ni soobee yàlla danga naan lii mosuma ko dégg fenn loolu yàlla dimbali si ndax wax naa la ne mhm. dañuy jëflanteeg ay jinne mhm. dañuy jëflante ak jinne nee naa la sama maam bu jur sama bi nga xamante ni moom lay wax mhm. dafa amoon ñetteelu soxnaam jinne la ba léegi mi ngi dund te ñu ngi jëflante ba léegi pour wax la seet moom si gàttal. loolu lu lépp loo xamante ni ci wàllu seet na moom lépp loo soxla si doomu aadama bi tey tey soo jugee nga fekk su sa taalibe boobu noonu jinne boobu laaj ko ay. yitte dina wax itte boobu. macha allah macha allah dina wax itte boobu waaye nag ku bëgg tamit mën nañu laa li si xaaral. Mhm. xoolal la ndax li si xaar dafa wó dafa wóor dafa dagal yonent bi demandé nañu ko sant nañu ko. Mhm. ñu di ko def. loolu moom lu wér la képp koo xam ne ñëw na pour seetlu mhm. dinañ la wax loo xamante ni si yow da ngay da dañ ko tegal loolu yàlla may nañ si loolu am na solo kon léegi waxtaan bi neexoon na loolu am na solo yaa ngi dégg kontaan nañ dégg nañ fa xam-xam macha allah ñu la doon laaj lan ngay tàggatoo ak askan waaw di leen gërëm di gërëm euh, mbokk téléspectateurs yëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan di wax ne réew mi jàmm rek moo fi xaj mhm. nañ leen yéene wante jàmm mhm. ñu ngi jublu ci ay ay ay élection mhm. waatal naa la ne élection yi di ñëw am na ay musiba yoo xam ne ñu ñëw ci dëkk bi képp koo xamante ni fi nga toog na nga saraxe na nga jël ndox nga nga saraxe ko. Hmm. si kàttanu yàlla di nga ma la balle si texte sax doyuma.